asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku Afrique maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant te nuyoo boobule boole naa ci sunu mbokku Sénégal yi nga xam ni dañu nekk ci réewu étranger yi te wara bokk ci élection yi dama nekkul woon Sénégal depuis ñaari at ci jamono yi nag ma jot ay bataaxal yu jógee ci ay góor ay jigéen ay responsable ay militants ay députés ay anciens ministres ñoom ñëpp ñu ma réew maa ngi tas ñëwal nga dimbale ñu parce que Macky dafa bëgg a def élection yoo xam ni duñu ko nangu te bu ñu sàgganee dina jur lu metti ma di leen fàttali li xewoon Côte d'Ivoire ci élection rek ñetti junni nit ñoo fa faatu boo demee buru ni ñaari junni ñoo fa faatu nga dem Guinée téeméer ak juróom fukk nga dem Togo ñu ne juróomi téeméer xalaat li xew Afrique mën loo xew Sénégal vraiment moo di ñàkk xel ndax sénégalais ak africain yi benn la suñu tempérament benn la c'est vrai que sénégalais nit ku gentil la ku baax waaye nag bu installé ci xeex pour woon leen ni li xew feneen mën na xew Sénégal fàtte leen suñu problème ba ak Mauritanie bu ñu e yaakaar ne rek sénégalais lu la neex nga teg ko Macky de dafa juum jënd ay saar ak yu kenn xamul pour ku def marche wala réunion mu écraser la erreur bu mag la parce que ci jamono Senghor ak Abdou boo bëggee def réunion da ngay may permis ba ma ñëwee ma ne leen liberté soxlawul permis kooku c'est la liberté encadrée mais comme Macky Sall moom dictateur la li nga xam ne moom la ñu bind ci constitution bi daf ko changer pratiquement boo bëggee def meeting ñu la jaaral fii doo jaar fii doo jaar fële nga bëgg a def place bi ñun la doo ko def place bi nga bëgg ko def Dakar ñun doo demal Géejawaay loolu donc dafa détourner les principes de liberté alors loolu nag ñun opposition bi mënatuñu ko nangu Macky Sall daal di jël code électoral bi changé ko ni mu ko bëggee sans mu waxtaan ci opposition te code électoral bi mi ko def Abdou ab moo ko moo ko def dafa woo opposition bi ñu toog autor d'une table ak NDI moo di benn kuréel goo xam ni moo di mbootaayu parti américain démocrate ñu encadré ñu ba ñu am code électoral boo xam ne opposition ak pouvoir bi ñoo ci d'accord code boobu moo fal moo ma fal man te Abdou Diouf kon moo ko defar bu defar ni Macky Sall mi man du ma falu man tam ba ma nga xamee ni code boobu ñëw na si sama loxo ma def ay élection yoo xam ni Macky ci la gagné nekk président de la République kon nag code bu baax na mën nañu ko changer peut bu fekkee am nañu ci war a soppi waaye rek nga ñëw rek bëgg a soxaloo yëpp bëgg a indi sa code bopp loolu nag moo di li nga xam ni bu ko bëggee def du sotti démocratie bi nga xam ne wax naa ko léegi nii moo amoon Sénégal ñëpp xam ne ni PDS loxo mi ngi ci biir dañu daan waxtaan ak sengoor def ay projet di waxtaan ak Abdou juuf ba am code électoral boobu ba jàmm am Sénégal mais élection yi ñëw li ñu naan c'est une élection verrouillée maanaam loo xam ne da nga def sa coffre-fort ba pare tëj ko loolu la Macky Sall def bëgg na ñun ñu ànd ak moom ci loolu lépp loo xam ne seet na ni lii mën na koo gàllankoor mu dóor ñii la éliminer Karim éliminer Khalifa Sall simplement parce que xam na ni ñooñu bu fekkente ni dem na dem na ak ñoom ci élection yu normal c'est pas évident que moom mooy falu parce que kenn ci ñooñu mooy falu mu jàpp leen tëj ci kaso bi et Macky Sall ci tribunal yu mag yi ci Sénégal muy cour suprême ak conseil constitutionnel mu jël magistrat yoo xam ni dañu doon retraité mu na leen léegi danaa leen may ñaari at rek ngeen continuer présider ma yooyu ba sama élection Paris ngeen soog a dem alors système Macky Sall daal dafa changer lépp te lu muy changer du consulter kenn dañuy xëy xëy rek gis benn loi mu def na di bay changer ci juróom benn weer yi nga xam ni mooy jiitu jour bi ñuy wote CEDEAO dafa ne kenn mënu ci changer code électoral Macky moom day xëy rek changer sans waxtaan ci ak ñun sans waxtaan ci même avec la Sénat mi nga xam mooy contrôler alo alors Macky Sall donc réformer magistrature def ay magistrats yu ko neex ba pare indi parrainage xam ngeen parrainage parrainage bonul France am na parrainage mais juróomi téeméer ngay am signature des élus ñi fol mooy député sénateur wala conseil municipal boo ci joxee juróomi téeméer ñu reçoit mais Macky Sall du juróomi téeméer juróom benn fukki junni ngay joxe liste de parrain li mu def amul fenn ci àddina xam naa ni ñu mën a ñu lañu waaye ñu wax Macky ci système am parrainage far la am ci àdduna man de xaw ma ko xaw ma ko dégguma ko mu ne moom mooy jëkk a tànn parrainage boo koy tànn booy tànn say parrain ci ci liste électorale ba nga koy tànne waaye moom mu ñu ñu ne gars ni moo jëkk a egg si ñëpp na mu mën a def ba mën a jiitu ci bureau bi ñëpp nañu ko truqué ñu ko yaay jëkk a mu tànn ba nga xam ni candidat bi mujj moom war na choisir ay parrain ci code électoral bi ñu dindi ci ñi nga xam ni ñooy parrain ñaar fukki leader ñaar fukki parti ak juróom-benn kenn mësula gis li fenn ci àddina alors dañu gis li donc ni élection bi bu fekkee noonu la war a demee danañu ci opposé ba mu bañ a am ñaaral mën a am Macky Sall dindi affaire caaxaanam yow de organiser des élections libres et démocratiques ku bëgg a nekk candidat nga nekk candidat ñu dem wote ku gagné ñu xam ne yaa gagné waaye bëgg a truqué ay code électoral yooyu de ba pare ni ñëw leen wote duñu ko def moom dafa sélectionné juróom ba mu ko annoncé boobu conseil constitutionnel dafa dafa ko mu ne fokk ñu ak si juróom candidat mais juróomi candidat yooyu candidat yooyu moom moo leen tànn kon ñii laa bëgg a bëral waaye éliminé ñu si des yëpp ñooñu nag am nañu droit sax dem élection waaye dama leen nga xamal ni erreur la bu mag que sénégalais tey nga dem naan da ngay woote Macky boo ca demee nag xamal xamal ne à l'avance moom defar na élection ba pare loo fa ba pare ñu battre la nga ñëw na wuy Macky triché na fii bureau de vote yi fii nangama nangama nangama ku ca dem mën nga dem waaye bul bul prendre mesure fële duñu ko nangu ku dem ci élection yooyu na nga xam ni Macky sal mooy formu parce que ni mu def ni defaru ko pour keneen falu bu fekkee ni Macky bëgg na lu def élection normale nañu mettre en place une commission nationale démocratique commission boobule préparer élection yi ñëw li nga xam ne daf koy def ci code électoral bi te consulter opposition bi yëpp mu dindi ko carte yi nga xam ne million ak genn wàllu carte ña ministre de l'intérieur bi téye parce que ay jeunes lañu bëgguñu jeunes yi voté loolu yëpp bu fekkente ne nangu na ñu jox jeunes yi seen carte dindi ci code électoral bi li mu ci yokk te waru ko ci waroon a yokk ah ñu de mën nañoo toog waxtaan moom soo bëggee it mën nañoo indi benn réew wala benn ONG comme ni ko Abdou Diouf defe woon mu ànd ak ñun ñu discuter di adopté ba am un compte code électoral boo xam ne noo ko bokk defandoo ko bu fekkente ne mën na loolu daal mën nañu mën a waxtaan ak moom alors suñu plan nag action dañu ni ci ñetti diir lay am fii ba le 23 benn bi moo di le vingt quatre jours élection yi bi ci des moo di après élection yi parce que xamoon lu xew waaye ak lu mën a xew ñun pare nañu suñu programme naka la ñu koy mën a dékkoo li nga xam ne nag noonu la ñuy def fu mu bañ a am élection ñun de recommander noonu suñuy militan ak population bi yëpp bu ñu am violence bu ñu toj bu ñu dóor bu ñu yàq waaye ñun li ñu bëgg fexe ba am changement te kenn du ci loolu waaye nag bu fekkente ni Macky li ñu koy wax déggu ko dafa bëgg a forcer ah lu amit moom moom mooy responsable bi parce que li mu bëgg ñun duñu ko nangu dama ni bu ma waxee wax jooju fii ci Europe programme boobu Sénégal laa koy liggéeyee ak parti yi ànd ak man ci biir front bi ñu def conférence annoncé ko ah ñuy ñaan yàlla nag yàlla indi jàmm Sénégal waaye daal kuy ñaan kuy ñaan na nga ñaan Macky Sall changé doxal dëgg bu fekkente nag dafa am benn sëriñ boo xam ne daf ko ni yow dama rek da ngay gañe na dem mi kenn mënu la gañe ci élection yi Macky wala ku ko wax amuloo xel voilà daal li ma leen bëggoon wax mbokk yi eh, maa ngi ñëw nag yéen ñëpp xam naa ne <laughs> bind ngeen ma yéen a ngi wax maa ngi leen maa ngi ñëw waaye bii daal moom mooy sama programme fexe ba Macky Sall dem ñun jàmm la bëgg na def li ko wax def élection normal su ko defee ku nekk man ngaa demal sa bopp wala nga ànd ak ñeneen am benn candidat ku gagné ñun d'accord nañu ci li daal bokk senegal moo di li ma a wax man nag euh, yàlla mënoon na def sax ma bañ a nekk ci politique ma nekk ci yeneen parce que dama am téere yu bari yoo xam dama leen commencé waaye nag bu mi di lakk mu mbokk yi ni ma ñëwal dimbali ñu pour ñu mën a génn ci bi mu bañ a am xeex mu bañ a am xuloo ma ñëw ci loolu laa nekk nag ngeen maa ngi leen di nuyu bu baax wasalaam